lii xeeñ lan la lii xeeñ nee naa la jaratul laaj kaay ma jox la adresse bu baax bi Pape Parfum VIP Pape Parfum VIP képp ku di kilifa ngay célébrité nekk VIP ci réew mi Pape Parfum moo jaar ci sa parfum bokk na ci wàlli balaagu sekk bu la rombee yënga rasta ya def daagu daagu dégeen mbaay di xeeñ neex ci Pape Parfum VIP la génnee mais ñi ngi jëm ci korité di jëm ci fête boo defee sa trois pièces bu baax maa nga def sa costume africain bu baax bëgg naa nga jàll ci Pape Parfum fële ca Nord Foire mu daal di lay jox nga xeeñ neex daal di belli sañse daal dëgg-dëgg bu amul parfum bu neex daal bëgguma pa parfum VIP yamul foofu rekk ndax loo yor bëgg naa nga dem ci Pape Parfum VIP di nga fa fekk parfum bi nga xam ni dafay ànd ak li nga sol day ànd ak kat gi nga xam ni moom nga bëgg a xeeñ. li ci gën a doy waar mooy Pape Parfum yim lay jaay ci boutigam rek nga koy fekk ndax dafay doxantu ba Chine ak Dubaï di jëli parfum yoo xam ni boutigu Pape Parfum VIP rek moo ko am ay parfum de classe ay parfum de marque. marque boo bëgg ci parfum yi nga xam ne moo gën a neex ci àddina danga koy fekk ci boutique Pape Parfum VIP Pape nga nekk fële ca Nord en face brioche dorée 77 405 99 07 77 266 41 44 ku ko ci woo rek di nga ko jot moo xam nga dem ci boutique bi wala nga woo ko daal di toog fi nga toog mu livré la Pape Parfum VIP moo mën moo ëpp doole bu suñu yëre xeeñee neex suñu yaram xeeñ neex fu ñu romb nga daal di signé Pape Parfum moo fa jaax tubaarkal la ay parfum rek ci yaram loolu final Maam Yaa Astu ni muy gaaw a jeexee lii eh, moom Serigne Diop war na koo yëg Serigne Diop war na koo yëg moom mi génne épices te nag daa mel ni xale yi li ñuy waajal korité gi moo tax. Eh, Serigne Diop yàlla na yàlla guddal fanam nag bokk na ci développement réew de moom mi génne épices yi bi poobar yaa faatu bi netatu yaa faatu bi ñu ne déeta waaye mu dolli ci carbonate yaa astu eh, xanaa xamoon sama épices tax ñu jox ma bopp waaye sëgëm sëgëm jeeg ba ba ma bàyyi kër ga moo changé. moo changé moo moo moo suqaliku ci togg. ah ñëpp a suqaliku baax na waaye nag waaye nag mbay borom xew mi nay na de. waaw waaye njëkkale nag ah fi raw na nekk yàlla nga fa. dafa ñàkk kalaas génnee 10 ba pare daal di ko dugalaat salaamaaleykum waa engagé. waaw noo def. <laughs> xale nag daa mel ni taay moo loolu de. xew rek na. xew ah, rek yàlla mën na lu ne yàlla mën na lu yàlla mën na xew mi nag euh, mbay waaw dañ koo waaj ay ati ati at moo tax xew mi neex na nag gis nga yàlla ci teg loxo ba pare ki ma àndal dafa wóor eh. Aliou Gueye hee borom Gueye et frère ca marché HLM xoola bii tisi mu ma daggal xanaa xamul ni kooku kii xew na xamul ni moom nit ñi ko la ñuy waajal wala daa am xaalis rek li nga xew milliardaire tekk la def ñuy xew xew rek mu ni tekk te go benn bur wi huit kilos huit kilos xoolal xarit la sës benn benn kii raxu ci. mais kaay toog ni nga ñëwee neex na ma de. Ah. <laughs> kaay toog moo la gën a toogil nee. Ah. ah del gaaw a jub nag mbay. am na nag kon ngeen xool noonu def la ma lu ngeen indi de waaye. Ah. jaayoo. waaw këy nag. jaayoo dara ko daje gëstu mbay génne xaalis bi gaaw. xaalis ban. xaalis bi ñu am ca xew ma. xaalis ba wala yow da ngay déliré yow war ngaa dem scanner sa bopp bi. moom sama xel may dem yaa ngi dof nag. yaa ngi dof de Fadlar séddaguñu yow yaa ngi dof nag. mbay ci boppam moo bëgg xaalis sa jikko neexuma. yow génne lii. waay waay eh, tey aslo bi dafa maa bett yow. Hmm. dañoo dem ci xew mi xew ma am vide benn moment vide. naa la sikiri aslo bi jékki-jékki créé taasu boo xamante ne si ni yow. Maodo maa ràcc nga daxi la sikiri la am de benn. ah, ah baax na. am nga gàllankoor benn li mu jabaar am nga gàllankoor benn li mu jabaar. yéen ci kaw photo bi taxaw. yéen nga mbagg mi ak rabu bi. bul fi jóg ma yëngoo dootul mën a toog mbay daal di mel ni fas bu yaramam di xasan naan mbaraj mbaraj mbaraj sama yaram bi di daw parce que xam nga deret naa fort deret dafa fort da nga mën mbay da nga mën def baray du baray yéen da ngay def da ko mën man de yàlla yow rek leel nga mel ni ku jël cag-cag nii di waaxu sa fi man dinaa tëye lii yow kon wéeroo lu may doyee ñeenti junni fukki junni lañ ñu jox ak téeméer téeméer ya maam ja cent franc cent franc yi génne lépp. asaloo ba gis nga nit ba def calcul nga def calcul total te bañ a xaaj calcul bi fukki junni lañ jox ba du ma ko de taxe bi ko ko fay te fukki junni laa ko fay ñaari junni. waa mbay waa du des quarante mille. waa yow ah du des quarante mille. waaw taxe dix foo ko gis. xanaa xew mi maam mi lor la mbay mbaa xam nga ne mosoo am engagement bi nga juddoo ba léegi yaa ngi doog am engagement. aslo bi dafa mel ni da nga. xam nga ne duma la tëj sa dama lay defeere. doo ma tëj doo ma defeere te boo jëlee angle bii ma jël angle bee bat ba dem bat day dellu ma maa ngi ñoo àndoon dem ñu jox ñu ñaar fukki junni ma jël ñaari junni yi fayee ko taxi bi bu ma may riir na. ah mbay Lamine du lekk morom ba ta ñoroon nga mel ni que malaaka yi tëye sa wax nga yow boo gisee xaalis dangay lox mbay maa xam nga ne tey dama lay dóor ba nga tëdd. musoo romb nag fu ñuy pàddee nag seeraas ni ñuy def nag ya noonu laa def tamit boo ba léegi kenn musuma dama bëgg xam dóor lu muy saf en tout cas bu leen ah, am ci ay mbay génneel xaalis bi xam nga loo nar a def péti dix pétres boo ko jooy di ñibbi ñeenti junni yi bu la rëccee asalo bi nag. mbay génneel xaalis bi jaamal asamaay loo moom ma. mbay génneel xaalis bi xeexuma de xeexuma de xeexuma. génneel xaalis bi keneen mel keneen mel ni. yow xamoo sama diggante xaalis bi yow xamoo sama palmarès. gën la may wootee riir de koñ bi samay nawle laa fi. xaalis doo ko bëgg lu ma ko bëggul doo ko teg fu ma ko tegul doo mel ci xaalis noo mel ci xaalis ñetti junni la bu la rëcc. mbay xam nga nag luy wax ji. waaw engagé dafa dëkk ak ay nawleem. waaw te ku ne sa nawley sa gaynde nañ dem ci. kii ak moom yow amul naw ñëwal xoolal te may ma nii sama yére bi sama jaar mbay ñëw déedéet ñëwoon nañ engagé sama yoon nekkul ci seddoo seen seddoo iñaana ngeen yëkkati mille francs jox ma ci rayante leen na dem police dem leen ba police bu leen nee jiyata man ka yara jiyata man ka yara donc jotagul des na tuuti des na tuuti des na tuuti jotagul des na tuuti donc des na tuuti boole ko woor a wax ju bari woor rek dafa metti dimbali ma rek laaju ma la laaju koor gi da da da dafa metti yow moom yow yow man da yow balaa heure ndogo nga mel ni ku may bëgg a lekk dama jëndi soos jël sa mburu dama jëndi soos damay tëj bul ñëwaat damay tëj tay ginnaaw suba ginnaaw suba la julli suba damay tëj damay préparé ji tëjeetuma damay tëj. non non non non non non non non non non non non man fi fi fi fi fi laay ndogoo. ndogoo ma fi damay ñibbi damay tëj léegi gisoo ma maa ngi nii di jóg. man fi fi fi fi andi mburu andi mburu andi mburu andi dama nga jëndi ndog damay tëj yow fatta nga waay okok sim mu jëmul jaayagul sax nga mel nit nii dafa metti waay Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané <laughs> engagé <laughs> aw ko fenut aw ko fenut aw ko fenut <laughs> Ah? ci kanam. waaw. ndog. Eh? daa bi jee. manuria. waaw manuria. <laughs> manuria xaar tuuti dégg aw fi kenn naan fi suñ suñ ay jullit la ñu naan suñ suñ xaaral xam naa ni may def. <laughs> balaa ndogoo jot di ngeen ma rey. Eh, tegal li maa koy ndogu tegal xam nga nag dofoo keroog wan eh, dama nga jënd ji ndogu abuluñu abuluñu mbuluñu ma maa jax damay. ma ne jey noom inde baaba ma nga demaale seen kër damay tëj. abe kul. damay waajal julli. <laughs> ah kul. comme kul. tëjaguma. Ah. damay ranger ba pare. angaale. jaw. aw jajak. aw jajak. imi tay bir kaane caami. bi tay bir kaane caami. jakku mu kuli kuli de. aw ɓeejow fatiya aw ɓeejow fatiya emi tawi pane ramɓeni emi tawi fan pane ramɓeni fan jaw lawam lawa mani jaw lawa mani lawam ko malawi wax mala koye delloo bam saf agaaɓe dof bi lim yan boppam diis na te noonu lay guddee fan mu sonn naa wala subaak léegi ba ndogo ngi a jot jaay ma dara ñoom ñaar ku ne jox naa la xaalis su ndékki waaye nag waaye nag ku yor nodd gi ana heure ndogi bi waa waa ah waa heure bi daa annière wala heure bi dafa annière wala allahumma laka sum xeeñ nee naa la jaratul laaj kaay ma jox la adresse bu baax bi Pape Parfum VIP Pape Parfum VIP képp ku di kilifa ngay célébrité nekk VIP ci réew mi Pape Parfum moo jaar ci sa parfum bokk na ci Wally Ballago Seck bu la rombee yënga rasta ya def daagu daagu dégeen mbaay di xeeñ neex ci Pape Parfum VIP la génnee mais ñi ngi jëm ci korité di jëm ci fête boo defee sa trois pièces bu baax maa nga def sa costume africain bu baax bëgg naa nga jàll ci Pape Parfum fële ca Nord Foire mu daal di lay jox nga xeeñ neex daal di belli sañse daal dëgg-dëgg bu amul parfum bu neex daal bëgguma Pape Parfum VIP yamul foofu rek ndax loo yor bëgg naa nga dem ci Pape Parfum VIP di nga fa fekk parfum bi nga xam ni dafay ànd ak li nga sol day ànd ak kat gi nga xam ni moom nga bëgg a xeeñ. li ci gën a doy waar mooy Pape Parfum yim lay jaay ci gam rek nga koy fekk ndax dafay doxantu ba Chine ak Dubaï di jëli parfum yoo xam ni boutigu Pape Parfum VIP rek moo ko am ay parfois de classe ay parfum de marque. marque boo bëgg ci parfum yi nga xam ne moo gën a neex ci àddina da nga koy fekk ci boutique Pape Parfum VIP. Pape Parfum VIP ma nga nekk fële ca Nord Foire en face Brioche Dorée 77 405 99 07 77 266 ku ko ci woo rek di ko jot moo xam nga dem ci boutique bi wala nga woo ko daal di toog fi nga toog mu livré la Pape Parfum VIP moo mën moo ëpp doole. bu suñu yëre xeeñee neex suñu yaram xeeñ neex fu ñu romb nga daal di signé Pape Parfum moo fa jaax tubaarkal la ay foom rek ci yaram loolu final